jërëjëf ginnaaw mu leen nuyu ziar leen di leen wax alaykum wa rahmatullah wa barakaatu. ba tey ñoo ngi ak sëriñ bi ci yéen saaru tedd yi ñuy wax yaasin bu ngeen toppee première partie bi da ngeen gis sëriñ bi indi ci ay leeral yu ama am solo nga xam ni kon yaasin eh, day mel ni mooy xolub alxuraan. Mm-hmm. mooy mooy mooy maanaam alxuraan bu fekkoon jëmm la xol ba moom mooy yaasin te xol ci jëmm Sëriñ Tuubaa nee na dafa mel ni. ab buur ci ay réew ci am réew buur bu nga xam ne moo yërif réew mi noonu la xol di mel ci jëmm xol nag fu mu jëng jëm ma ma tamil yamil bilam tiraa yi waaw jërëjëf alxalbul kalmadiki fi la aada yi ma ma tamil yamil bilam tiraa yi ab xol fu mu jëng jëm foofu la cër yëpp jëm mm-hmm. mu mel ni boo ko doon misaal tey ji ci président réew mi fii ne ko bëggoon a jàllale benn message ci sénégalais yëpp mhm. nga jaare ko ci moom ci lay gën a gaaw yëpp lay jot mhm. Mhm. or bu mu joxee moom ñëpp koy jëfandikoo keroog sëñ baa ngi def benn waxtaan di ko di ko di ko di ko di ko di ci ginnaaw rek bi mu ne bu bu fenti une heure jotee bu kenn génn sa kër fa mu toogal toog joxe ordre fu waaye mën a nekk bu fenti une heure bu jotee nga tëddi dégg kon moom mooy xolu réew mi noonu la yaasin mel ci xolu alxuraan nga xam ne boo bëggee ndar ci première partie bi ngay dégg mun la digg bëccëg maanaam yaasin alxuraan yépp day dajee ci biir yaasin nga xam ni miin nga fi ne boo soxlaa nit sax ba ko fekk këram nga xëy diisir bëgg faa dem yaa ngi am xel ñaar boo demee doo ko fekk ndax da nga ko fekk mu liggéey waaye da lay wóor ni 14 heures moom fu mu jotee da nga ko fekk mu añ si ba pare di ses boo ñëwee di nga gis di nga gisanteeg moom kon alxuraan yépp bu ñu xëy doxi seeni course dégg nga kii jël ci am wàll kii jël ci am aaya fu tisbaar jotee ñëpp añ si nañ ci yaasin ba noppi di sers boo ñëwee fekk leen foofu ñëpp boo ñëwee fekk jàpp yaasin jàpp ñëpp mm-hmm. bu seesee jëm ka séréer ñëpp tasaara woon dem mm-hmm. saar ba jaar fi aay ba jaar fi kii jaar fi mm-hmm. fu timis jotee ñoo ñëpp wàcc nañu dégg nga daje ci biir kursi yu ku liggéey fu timis jotee nga wàcc sangu añ toog sa kër kon waxtu woowu boo ñëwee jàpp jàpp kursi yu yëg nga ne na nga yëg ni jàpp nga alxuraan yëpp bu timis gi passé jàpp gee vingt une heure vingt deux heures ñu nekkaat seen yitte fu guddi gi tàmbalee dugg rek ñoom ñëpp daje ci faatiha nga xam ne sëriñ bi andi na ko ak leeral mu mel ni kon yaasin ak kursi yu waaw ak faatiha ñoom ñooy ambassadeur alxuraan mooy xol bi kii mooy xol bi kii mooy bopp bi kii mooy bopp bi kii mooy jëmm ji kii mooy jëmm ji kon kon kon kon kon kon mi ngi noonu <laughs> sëriñ bi nag développé ci ay développé ci ay ay secret yu doy waar ci biir wax la miim yi miim boo ngeen yàggee suivre euh, émission yi sëriñ bi miim mooy miimu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ci lañ ko yónnee bi mu amee 40 nga xam ne miim li mu composé dafa bari ba ci jëmmi doomu aadama sax sëriñ bi wax na ni maanaam euh, miim la miim ah. xaaram del miim del ah, miim gi mooy bopp bi waaw kay xarim gi mooy dënd bi waaw kay geneen gi mooy digg waaw kay tànk yi mooy deel kon kon miim ngi noonu ba noppi sécurité gi muy wax nga xam ne miim dafa tëju waaw dafa tëju dafa tëju yaa ngi dégg sànq mu wax ni intérieur rek commanda ku bëgg sécurité waaw dégg nga kilifa goo mën a doon waaw kay tekki dara ci dëkk mhm. te bëggoo ku la yàqal li ngay def mhm. gisal tan xarit ñoom lu ko yow ci miim ci miim waaw kon kon miim ngi noonu mhm. nga xam ne dafa répété wu ci biir yaasin 306 fois ñet téeméer ak juroom ben wax ko di composé sur woowu ñuy wax khahar khahar moy ki not lepp bepp bour bu mu safalu ta wacc khahar la wàcc wax wal xaayiru fawqa wa huwa al akim al khabir kuñ ku ngassul ci khahar la suñu borom ak yow nga xam ndombal tank lo mën am président député xalifa généraux yépp li fekk yaa ngi dox say service muy dox daa fekk xaxar suñu borom jëfandikoowul ci yow baatu baatu xaxar waaye ko yàlla jëfandikoo ci yow baatu xaxar nga wàcc mm-hmm. maalikal mulki tu'til mulka man tasa mm-hmm. wa tanzi'ul mulka mimman tasa ci xaxar la mm-hmm. wa tu'izzu man tasa wa tuzillu man tasa ci xaxar la nga xam ni kon xaxar mooy lépp mooy lépp sëriñ bi nag andi na ci secret yoo xam ne fu waaye mën a nekk mën na koo jëfandikoo waaye nag ñëw fi moom lay gën a gaawee ndax borom ijaaba la dégg nga <laughs> lum la jox jox ñu ñak benn ki wu ndaw bo xam waaw waaw waaw waaw waaw waaw ah, waaw comme yaasin bi wax non nga xam boko bindé ubi bindee ubbi mi mi maanaam boole ko xewar xamna naa sëriñ si naa ñaan danañ ko jël <laughs> ah? ak képp ko xamni ñaanu sax ba say aju faju ah, waaye wol sëñ ba nga seet ko mm-hmm. say mbir dina gën dina gëna tawfiq inshallah feex rabbi mm-hmm. kon fofu la sëriñ bi yamon bismillah ñu agal ci ci ci yaasin sëriñ xam nga surtout da nga mm-hmm. wax ba tuddu mim gi ñu tej Mhm. lu tax ñu tej ko ñu tax ñu tej ko xam nga mooy bopp mooy bopp mhm. bopp nit néew mhm. moom naan masque ñi lañ koy wax sax dafa dafa ron ah mooy sukkoon mooy sukkoon fi ne loxo bala nga caa mën a jariñu lii lay mën a demee waaw waaw waaw ci ngay def foofu ci ngay yalwa. ko ko koy dóor da naan nii. booy tëb it <laughs> ci joxe képp boo ko doon def feeg néewu ko nii. Uh-huh. loo jàpp loo joxe. Hmm. moo xam sa poos nga jëm. moo ci bool nga jëm. Hmm. moo xam feneen nga jëm. Hmm. waaye nii moom du ko defagul nii ngay def ba noppi ba am loo téye. ngëb bi da koy wut gis ko. fii ne mim googu mooy àdduna. mooy àdduna wër nga këpp genn miim la ci su nga xoolee. di wax miim rii. fi ne boo demoon ci sun soxna yi. Mm-hmm. miim googu la yor. ba tax ñu mën a produire dara. waaw. Mm-hmm. mooy awra. Mm-hmm. awra. miim la bindoo. sala boo demoon ci góor. kanamam boppam miim la bindoo. gis nga ko de. dëgg la mim googu boo demoon ci laa ja di jàng. moom ngay njëkk a mooy tomb boobu ngay gis. ñu di ko wax baa. mim la. gis nga ndax dañu lay taajal ket mim la. mën na la tudde ko palaat ma nga tudde ko bool. baa baan ak mim la. ci kaw suuf amul nit ku yor estro war a bëgg a def benn écriture. Mhm. te defoo miim da ko jàll noppi. Mhm. cey miim boo nee càpp rek. Mhm. tomb bi ñëw na. tomb boobu nag. mooy affaire bi mooy affaire bi. sallallahu alayhi wa sallam. dund na ba am miim. ñu doog koo yónni ñu doog koo yi kenn yónniwu. bi mu amee miim di 40. la ko yàlla dugal doog liggéey jot na. lu ca topp ne daa topp ca miim loolu miim kilifa bu baax tey ci yaasin daf ci suyee rôle bu am solo c'est Abdul Xaadir Jilaani radiyallaahu anhu dafa suyee ci ci waxtaan wi rôle acteur principal daa participé daa wax ni bokk na ci sirru suratu yaasin yaa gi yërmande la yaa gi yaa yërmande yërmande yaaw yërmande ngay jiital waaw siinu yaasin sutura tey wala loolu ay ba nek sutura de mom yasin mu ni alma ya nga jox ko mu bind ci ya yarhamu kala nga nga mu baasi jox ma seen gi mu ni satar Abdou Xaadir Jilaani ma wax loolu tey. radiyallaahu taala ah. Yaasin Tek. ku mës la joxe muy dem kër. Mm-hmm. ci waxtaan wi. day wax ni jàngal ko sortu Yaasin. Mm-hmm. su ko ay ubbee téere mu leen waxuma leen lool de. Mm-hmm. ñaari fu jëkk rek laa wax jàngal leen ko. ñaari arafu gën yaa gi borom kër gi mu ne ah mu ne ko yërëm ko. siin mu ne suturaal ko. suturaal ko wax ji jeex mu ne yóbbu leen seen séen. yor mari sutura ma ngi sa nga ko yabe yow mi ay sit waaw fu musa mur nañ koy jangal yasin waaw nañ koy jangal yasin ci abdou khari jilani mo andi lolou mom ci waxtaan abdou khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu da wax ni bu ko re jang ta ko jang ndax da ko fonk mom neena ñaari barba ka wara tax ñu ñuy keul mom sopp yasin da ko fo ko ma nga yaakaar ci moom mandarga yi xam nga sonn te diwul. Hmm. jàngale soo tuyaas yi léegi ñu évacué moom dem yoonam. waaye du fa nekk mukk di woote garab di lekk xaalis nit ñi ñu koy sampali butéel machine yooyu ñuy nooyee AVC bu dul jeex nangam bu dul jeex jëmale berekete. Hmm. nee na bu ngeen jàppee ni kii daa nara a sonn nan jàng yaasin rek ci ci bopp bi. Hmm. suñu borom léegi mu def ci moom di gën mu dem. noppalu benn yoon. ko wax. ñu ne ko ak kan mu ne ak ku koo xam ne suul nañ ko. may leen def keroog Touba. waaw tiim bàmmeel ga te déplacé wu ñu. ku mën yaasin na taxaw ci bam ba ba jàng ko. du ngeen déplacé wu mukk yéen ñi ko doon suul lu dul yaatal nañ bàmmeelam. lu mat juróom ñaar fukki meetar. néeg bi nga doon dund ci àdduna. sa bàmmeel dana ko gën a yaatoo 70 mètres ci côté bu ne. ndaw saat buy. du neem ci yaatal ko képp de. dañ la koy saloneel boole ci matériel néeg bi ci ne. xam nga yéen nga dem ci néeg yoo xam ni. laal bi ngay reposé wu. boo ko teg taabal amassé. waaw boo ko teg fi bi ne. am na ñoo xam ne seen sambre. seen appareil yi ñuy defee musculation salle de musculation sax mu nga fa. Mm-hmm. seeto nga fa yo xamne ne sango pare fa ñu tok manam sal bi ñu réy non manam ki niw bi nga am mu nekk ci bammel señ xadim nga toog jàng yasin ci bop ba do fa joge mukk te yat lu bammel bi juroom ñaar fukki meetar ci côté bu ne des na ko yaatal des na ko leral des na ko taaral xanaa kooku day bokkut tak kon ñi nan bammel lëndëm ñuun ñaaw niw bi bokku ci Seex Abdou Khadre mo la ndekete kon. Mhm. solution la ci sukuraat. ci sukuraat. bul bàyyi mukk sa néew muy sonn sa sa malaat muy sonn. Mhm. dana wér ala kulli aan. Mhm. wala mu dem àjjana léegi mais du fi nekk di laaj ci laaj rek. muy métti rek yow bu ngeen xamul. jarak yoo ko jàngal. suñu borom def ma def ci sutura. maanaam bu fekkee tawa ji tawati ndee la moom. day day dem léegi waaw waaw bu dee baax xool ni kii. xam nga tawati ndee. bu dee sama mbokk yi ci salon yi nga xam dañoo ragal sa tànta ñoom. booy wax booy wax ñu laal seeni nopp. yàlla na ko yàlla wéral. waaw mu ne daal laal nopp yee moom. <laughs> bu déggee dee. waaw bu déggee dee noonu lay def. Euh, ndeysaan Cissé. ah su waxtu woo yore sa malaat ba gis tuñum kaw ma gàtt. bu mëntu la sàng siiñ ma presque. Hmm. na nga ci ñaaw njort. Hmm. waaw maa la wax loolu. Hmm. xam naa bàyyi woo ko xel nag. waxtu lekk ay seet ko nga dem fekk mu fangee tuñ ma di gàtt jëm kaw léegi nga ñàkk ko que def nga ko waxtu woo yoree néew di ko seeti làmmiñ wuy dugg ba buy wax day yuutu pour doo ko wax xam nga booy bëgg a faatu si sidit bi yor làmmiñ ci suuf nga xam ne moom lañ ko yeewee dafa mel ni ab once bu ñuy xëcc keneen néew laa mi day dugg hmm. boo ubboon gémmañ ga tey ba koo jàpp boo xëccee day koleet danga ñu ñu waaye du jot bëñ ne làmmiñ mën a génne nii hmm. jaag ju dee làmmiñ du ko mën hmm. parce que làmmiñ ñu doxantu moom kuy dund lan ko may waaye ku xosfaat làmmiñ bu doxantu bu day dellu xam ko du seetlu nga lool ma wax la ma wax la ay mandarga yi waxtu woo amee malat biir bay néew xam nga nit dana egg foo xam ni. Hmm. su lekkee lekk di du dugg ci bàq gi. comme microbe yi ni nga ko tëjee. Hmm. tey bu doon butéel la nga saañ ko di ca sol ndox. Hmm. butéel boo teg ci ndab. bëgg a sol ndox ci biir butéel bi ko. soo sottee ndox mi ndox mi di ci biir butéel bi day tuuru ci kii bi nekk ci bool bi. ndox yooyu nag di di ñëw nga xam ne nit kaan ko yéen koy force naa ko naanal lekkal te dugg duggagutul ci bàq bi mooy ci biir bi. mooy mooy nii biir bi muy gonk ni génn boo nee nag noonu lay noonu lay def noonu gars yi ne cancer la ñii tudde ko hépatite ñun mën mën ko laa tudde bu boobaa mm-hmm. waaye day fekk booba ñam bi tàbbitul fi mu war a reese mm-hmm. pour dem toilette mm-hmm. nekkatul foofu léegi ci côté yi raboor yi fa lay nekk rek di di ëf der bi muy def moo tax su boobaa génn di ko bu ko waaj dekkee bëgg a dee parce que mu fu mu jëm yàlla moo def ci jaamam suñ borom kattan goo xam ni ni mu liggéeyee biir nit dafa am machine buy wan lekk gi hmm. yow boo ko sàqamee ba noppi ba wann ko fi nga koy jaar ci woo boobu bu dee cëpp dafay fekk ci ci bi ne day ubbee ñaari sorti a nekk am gaanuwaay bi war a nekk ay toilette boobu bu dee cëpp mm, mm, poftan boobu dafay toq toq deret hmm. dañ koy mooñaat kaas ko war ba mu nooy di war a nekk ay matières yu lay jaay yow ak ndox hmm. deret nangam ak yi xam da war a dem toilette su nit eggee foofu nag dañuy tig foofu sorti bi léegi ba poften bi duutu liggéey ci moom mm-hmm. kon mënatu la lekk lu rees mm-hmm. ndox mi day traversé jaar ci robor yi mm-hmm. loole muy def nag mooy néew yi yaramu nit ki boo nee nii tànk ba bës sa loxo boo teggee day nuux du ngeen wax la mandargay ba boo ci gisati say malaat ci côté yooyu nga bàyyi ko xel fu ñu eggee ci diggante trois heures du matin 4 heures du matin côté guusu malaat boobu kenn du ko mën a laal ndax ndax metit foofu waaw mu onk soo ko tëralee sax mu ne parce que foofu la xol yi ak yére yi nekk te boo day fekk boobu jàmb nañ ba mu mel ni kamaate njàmb maanaam fonctionné parce que tàngoor yi ne ci biir ni dafa rëy ñu ta tàng ay mm-hmm. bu woon yërmande ya mm-hmm. noo gi ngay génn nii fi ne ñaata ton la ñaata ton yow yow jàng nga mm-hmm. scientifique yi maanaam noogu nit gi nga gis ni moo woyof loolu hmm. fii ne moo gën moo moo benn noobu ne moo ëpp une ci poids ci suñu borom mais latif yi yàlla latif hmm. Hmm. mooy appareil bi ñu ci def comme saalu kilim waaw oxygène bi latif la ko jàppe tur woowu ñu wax noonu am na ci wax ci ayul xëyum la tudd nga ko léegi ndeysaan bi ngay jàng ayatu kursi sama yaram day raw ayul xëyum la suñu borom jox rabbi len ko ba nga man ko diko xëc ndank muy jall ni ngay jëlé ab ab ab ab camion viru bu yobbu 40 tonnes ciment nga tek ci ngor su ndaw moo mos caabi ni nii damaare mu jall xam nga ni ngor si tok ci kaw mënta ko ci camion lu tax mu déplacer ko suru bobu la suñu borom fop def ko ci ay xëyam benn def ko ci latif ñoy contrôle affaire yi yooyu yeneen affaire la mm-hmm. moo tax booy noyyi du métti mm-hmm. boo ko dugalaat du métti mm-hmm. soo dee ba war a faatu nag oxygène bi nekkoon ci biir nga xam ne moo doon alimenté wu ba ban di kàttan ko dafa du nekkati moo tax noog yi mujj ak mujj ak génne xëet lay def boo xam ne ku nekk amu digga parce que day liri ko suy génn ca saase deret nit ko day way way nit bu faatoo fii ne boo ko bàyyee 15 minutes deret ja way way na soo yeexee nga doggali ko rek danaa kàddu boo dina am ñun sul ñoo xam ni ngeen sulé boo ko yemoon di nga waaru mhm, dañoo defar moom ci saasi mhm. Mhm. waaye julit moo am sens mo am sens ku dul julit amul sens ndax duñ la duñ la duñ la defar waaw ku dul julit di nga faatu xam nga sëñ xaarim ya tém ya gëm néew bu leene ne faatu na bi te dugaluñ ko ci sambu fuat bu baax waaw su ñewate bu ne ne ki sali war nga na du moom deug la da nga defe ne sa bën bëni bët yii ni mu ni mu ni mu waxee noonu nga mën koo gis. faxe bakken yi yii ni mel maanaam kooku bu faatu ci lii day maa solo du doon tur yu bët. day moo garaaw. day maa solo parce que yooyu deret deret mooy daw di ko defar bu ko deret yi nekkatu nekkatul day maa solo waat doon rëlu boppam. bu dee jullit nag ci saase da ngay dem dellowaat ko loxo yam ndànk takk ko fob dara ndox laal ci kanam commencé ko mu gëm gémmeñ nga fob ko sa takk ba du ko nga bu baax ñeneen yu non mara di taal yalla yàlla mosal ci ñoom dëgg la Cheikh Bukhari jéeraan na bo demee bay ci sa malaat nga xamni ne gi yi gis nga ko ci mom togal gaaw jàng sooratu yaasin yu yu négatif yëpp ko gis du mm. ñaaw du yàqu du néew yi du mel neneen mm-hmm. te bu waree faatu suñu borom dana ko gaaw dimbali du sol sonn mm-hmm. suukuraat dafa métti mm-hmm. moo gën a métti miin paaka yuñ la jam ba ba mu am lu mat vingt bu bees du métti mais su xasee passé vingt et un vingt et la la la di commencé ñëw lu gën a dox nag lu gën a métti maaye diggante foofu ba 21 minutes man nit ki man nay wax ak yow mais su ko passé tuuti foo laal nga ne gaa yaa ngi may gaañ waaw léegi nag mii rab wala 1000 paaka yu ñu la jamandoo ba mu passé loolu sukuraatu gën a ñu jàngal suratu yaasin nag ala kule àll doo yëg demee ci bàmmeel lu taxaw ci ba ci ba jàngal la ko nii ma la ko waxee juróom-ñaar fukki mètre bàmmeel dana ko weesu waaw sëñ xaarim waxuma ki ñu ko jàngal waaye ki ko doon jàngal du dund nag kooku am sens si daa yan faaw maytan wayan fa buur wayan fawul xayya wala yujibul ujur waaw mais moom xaarul ba faatu hmm. bu leen xaar ba faatu doo ko mën yaasin hmm. di leen ko jàng seen dund seen dund benn yaasin hmm. garante la sécurité la tout la vie donte nit ki dund na ñaata junni at am na lu ko yaasin bi di servir. te bu faatoo lay xam ne ñu koy jariñ. Hmm. wax naa la hmm. ne. yaasin yaa bi dix la. Hmm. siin bi trois cent bi trois cent dix. trois cent dix boo demee ñeenti ismu saati lay doon. allah. boo ko multiplier par quatre. benn waliyu rek mooy des. waliyu. 46 waaw. ñeenti ismu ak benn waliyu ngay am. waliyu mooy kii contrôlé mooy ki méngoo affaire yi. كن إن ولي الله <laughs> الذي نزل الكتاب وهو يتولى وهو يتولى الصالحين واو واو ما <laughs> ياسين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ياسين ده وهو يتولى الصالحين مطلع جان الآية بو <laughs> إيه؟ بسم الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين تكرار إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ndeysaan ndeysaan inna wali yàlla gaa yi yàlla yi nga xam ne ñoom méngoo secret yàlla yi ñoom ñoo jot secret yi nga xam ne ñoo nekk ci biir téere bi nasal kitaab siru yi alxuraan suñu borom mi ngi ko sol ci biir gaa yi yàlla yi wala lolu mm-hmm. waxu tay gaay yu la tata mm-hmm. wala salihin mm-hmm. ñom ñoy gaay yiw yi siri alquran ngi seen bidd ni ñu ko wax ni tek tudal ay mu daal koy jang tudum tek nasal kitab o ko ñom ñi nek ñoy salihin <laughs> est ce que xam nga borom bi tabaraka taala seen xaar tax mu yi mu bay wax inna nahnu nasalna shukra واتنا تيريك وان الله لعفسون من ماي لا غارديان لا كونستيتيون سون برومير موي موي غارتي بي واتو القران مي كين ديموغول تي بن بيبليوتيك فك سون بروم تاخو تي بونتو با وان الله لحافظ موي ما كاي ديف تي دمي غاي كو خامني بو القران ييرون ñu jàngaat ko bindaat ndaat ah ndekete teg bi suñ borom di wax du bibliothèque tegu dénk armoire bi menuisier bi di defar waxul boobu de armoire bi di defar waxul boobu de armoire bi architecte bi di defar du boobu de way na dafa laa afisun mooy seen dënd yii bibliothèque gu donga daara yi mooy teg bi nga xam ne ci la yàlla def kaamil bi pour mu garder ko wala loolu. ndeysaan mm-hmm. nga xam ni. Mm-hmm. yow bind nga kaamil taxuloo ko. Mm-hmm. moom bind nga kaamil taxuloo ko. maanaam nga doo xam ne donga daara bu alxuraan xotti ko woon raaf. amatu. benn donga ba dong ngay indi. mu gëx ko. waaw. alxuraan génnaat. defaraat ba mu mel na mel moo tax alxuraan kenn mën koo sànni. téere bu dul moom mën nañ ko saase. wa كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته نعم. وهو السميع العليم وتمت كلمات ربك صدقا عرفي اي ايجيبي داو مات مانيسكي يوك بن عرف مانيسكي واني بن عرف فيليب موخوني الحمد لله مالك يوم الدين مومي مونا جوم Mm-hmm. ci saase mm-hmm. amul ku ci mën a wàññi dara mm-hmm. alhamdulillahi iyyaka na'budu mun a du noonu de li mu doon képp la doon loo ci teg lu loolu ñu ne ah bi bokk ci alquran beneen téere bu dul moom ibtadahooha maa katabnaaha suñu boroo ko ibtadahooha maa katab naa gaa yi soppi nanu maa mhm. katab naaxa téere baa leen joxoon mhm. yàlla ko ci alxuraan waaw mhm. boobu mu ngi koy wax ci région yi ci bible bi alxuraan la kenn mënta sax kooku lañ jëm su ko kon kon kon daal ñeenti ñeenti allahu ak benn waliyu waaw mooy mooy mooy mooy mooy Yaasin mooy 310 bi 310 xam nga a garaaw 313 daa génn ci moom Mm-hmm. waaye sëñ foofu day bala ngaa ñu moom maam lu lu ma kii aywa tuuti daa mel ni. <laughs> Ah. <laughs> waaw daa mel ni loo dencoon foofu sa sa nasur gi de moom la de. waa kay. <laughs>